chers internautes du Top Info TV Sénégal dal leen jàmm ab accident bu métti métti moom la ñu xëyee ni ki tey jii kon ci suba ji àllarba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet 2023 ca Ñambur diwaanu luga fa toll ak fi nga xam ne moom la ñuy wax Ngaan Sarr ab bus transport public bu bàyyeekoo woon Podor moom moo ñëw ba yegg si fi nga xam ne kon moom moo di côté Ngaan Sarr daal di daanu ci digg tali bi bu ñu sukkandikoo nag ci xabaar yi nga xam ne kon am nañu ko ne oto bi jamono bi accident bi di am boobee kon fekk na li nga xam ne moom moo di asamaan si di taw. loolu nag tax na ñu bëri kon njort ne kon chauffeur bi dafa perdoon li nga xam ne kon moom moo di contrôle ba yëbbu li nga xam ne kon moom moo di oto bi mu daal di daanu ci kaw tali bi ak lu mu ci mënti doon daal jàppale ne li mu ñu ci ñàkk seen bakkan jamono ji toll nañu ci ñaar fukki doomi aadama ak ñett ñu bëree bëri nag jëlee nañ ci ay gaañu gaañu mu di ak accident boo xam ne bu méttee métti la xew ni ki tey ji kon ci àllarba ji ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet 2023 ca Louga fa tolloog fi nga xam ne kon moom moo di ngaan saar ñuy ñaanal yàlla ñëpp ñi nga xam ne kon dañu ciy génn àdduna borom bi xaaral leen aljana woyofal suuf ci seen kaw ñi nga xam ne dañu cee jëlee ay gaañu gaañu yàlla yàlla delloo leen ci seen sago ba ñu dellu seeni mbokki bopp